Euh, ñu ngi lay gis fan yee passé ngay am benn euh, looy dénoncé ba Sénégal yëpp wax ci l'affaire de passeports diplomatiques euh, qu'est-ce qui s'est passé ndax mën nga ci ñëwaat. waaw xam nga nag damay njëkk wax wax Sénégalais ne leen ñu xam ne passeport diplomatique du loo xam ne day tere ki nga xam ne mooy bénéficiaire bi du tere yow du tax nga am immunité immunité passeport diplomatique du tax boo demee aéroport kenn du la fouiller du tax doo passer par les le contrôle sécurité bi mhm. du tax doo jàll ci douane bëgg naa leeral loolu ñu xam loolu passeport diplomatique joxul benn avantage boo xam ne dafay dafay dafay dafay kaaraŋeel ki nga xam ne moo ko yor mhm. tax na passeport diplomatique dafa am ñoo xam ne dañ leen ko jagleel tey man dama ñëw aéroport Dakar di voyager ak sama passeport ordinaire parce que ñëpp xam nañu ne États-Unis dama doon dem ci printemps bi Washington DC bi. ñëpp xam nañu ne États-Unis visa moo fay dem passeport diplomatique boo demee taxaw aéroport doo dem États-Unis ndax amul ndax amoo visa. donc sama passeport ordinaire laa defee enregistrement moom laa passé contrôle police sama passeport ordinaire toujours rek. Mhm. cachet yi sa mun ci ba tey. ma dem bay embarqué tapi bi ngay awalee sa bagage yi certainement dafa am ñu ma xàmmee policier dañu maa xàmmee. Mhm. ñëw ne ma. Euh, jox ñu sa passeport diplomatique et comme c'était daa am sama saag la nekk. Mhm. passeport diplomatique bi bien vrai que voyagé wu ma ko. ma génn jox ko mi ne ma faites descendre vos bagage et suivez-moi. ah oui. donc j'ai fait descendre mes bagages benn par benn. topp ko comme si délinquant la ñu jàpp. et quel le but c'était quoi. ma topp ko bi ñu demee ba ci ki nga xam ne mooy chef am. mu téye sama passeport et je l'ai interrogé parce que je voulais savoir ce qui s'est passé. Mhm. parce que man xam naa ne mënuñ ma tere voyager. j'ai posé la question qu'est-ce qui s'est passé ñu ne ma ils ont reçu des instructions comme quoi les ministres en fonction ak les anciens députés nekkatul fonction. Mhm. ak ministres yi nekkatuñ fonction seen passeport diplomatique waruñu ko utiliser. ñoom xanaa xamuñu la. ma ne leen man dama nekk député parlementaire mhm. la en fonction ñu ne ma waa d'accord. ma ne leen euh, lu waral ngeen di def lii ñu ne ma instruction la ñu jot. dëkk yi waxuñ la ko. non instruction mais des autorités des nouvelles autorités. Mm -hmm. c'est des nouvelles autorités. te avant may dem tukki deux jours après deux jours avant am na ministre boo xam ne dafa ñëw aéroport voyagé wul xam nga fa la jàpp dem Gambie xaw ma Mauritanie parce que tout simplement yow nga am rendez-vous nga nekkoon ministre am rendez-vous xam nga France pour dem fa ñaata ñaata mois ngay ngay def fa am di nga bindu toog 4 mois avant nga am rendez-vous. koo xam ne amoon na ay engagement ku amoon ay engagement. waroon dem ñëw nga ne ko mënoo dem kooku est-ce que mën na dellu utiwaat visa. C'est pourquoi je parle de manque d'élégance. Et autre chose, le mais même mais député nga bu am droit passeport diplomatique benn ñaar aussi voyagé woo ak moom donc dañu la tooñ en fait. dañu ma tooñ. voilà. deuxièmement le président Macky Sall dafa amoon décret bu mu fi bàyyi. décret boobu abrogé wuñ ko décret boobu dañu wax ne muy les anciens ministres ils ont fait dans le banditisme. mais absolument dañu les anciens ministres les anciens députés les anciens chefs d'État généraux yi ambassadeurs yi nañ leen bàyyee passeport diplomatique parce que te liggéey bi ngay liggéey man tey parlementaire la mhm. bi may voyager nii demoon demoon mission assemblée nationale parce que dañ ma invité parce que j'ai un réseau j'étais vice-président du parlement mondial mhm. dañ may invité en dehors de l'assemblée kon donc le président Macky Sall a compris tout cela moo tamit les anciens parlementaires les anciens ministres dañu am ay relations tissé ay relations yoo xam ne dañuy jëriñ Sénégal ñooñu dañ leen bàyyi seen passeport diplomatique. mais le président Sall aussi. est-ce qu'il a été élégant nañ dañ taxaw tuuti. yow yow élection yi jeex na sa successeur xam nañ ko looy defee ay décret aussi. waaw non même bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee. mais nañ ko abrogé am nañ droit abrogé. maanaam li ñu mais non seulement abrogé des instructions. mmh. aux autorités de l'aéroport et c'est pas normal il faut avoir le courage d'abroger le décret ñu xam ne kenn du bénéficiaire mm-hmm. mais doo aw ci suuf di wax autorité yi aéroport ne leen ku fi ñëw passeport diplomatique bu mu jàll may xamal ne passeport diplomatique du protection mm-hmm. du tax du impunité du du tax kenn du la fouiller à l'aéroport man mu du ma jàpp sax salon d'honneur pourtant am naa ci droit mm-hmm. bu ma neexoon jaar salon d'honneur mais du ma fa sax jaar. damay aw président Sall dëgg la teg na ko ci yoon mais côté élégance aussi quelqu'un qui allait partir looy defe ay ay ay mbir yoo xam ne pour ñeneen avantage wu ci. mais mais il aurait fait il y a un deux ans kenn du wax. mais il était toujours dans son droit le plus absolu jusqu'à ce qu'il parte il était le président de la République du Sénégal amoon na sañ-sañu def ay décret maintenant ñi ñëw bees. Mhm. autant. ma dégg ne am na décret yoo xam ne dañ ko dindi supprimer autant ils ont la latitude de supprimer d'abroger li nga xam ne mooy décret bi jëm ci wàllu passeport diplomatique fi mu nekk Sénégal passeport diplomatique passeport ordinaire ñoo yem. Mm-hmm. booy dem États-Unis booy dem Suisse booy dem Autriche booy dem Qatar booy dem Serbie tout ça on te demande le visa France Portugal Espagne. ñu donc la sa passeport mën nga foofu nga mën a dem saa nga demander visa donc pour vous dire simplement que moi j'ai dénoncé manque d'élégance boobu ñu am envers envers les ministres mais man aussi mhm. man aussi la façon dont ils m'ont traité vous l'avez dénoncé les médias en ont parlé mais vous allez en rester là wala da topp parce que am nga ci droit aussi dañ dañ la dañ la tooñ dañu ma tooñ wax dëgg yàlla dañu ma tooñ mais foofu foofu nga ci yam parce que non parce que j'ai dénoncé mais je pense pas que. même vos collègues même vos députés auraient pu porter le combat. ils ont voulu parce que yow lañ laal mais ñëpp lañu laal. aussi ils ont voulu. yàlla na ci dissuadé ñoom ñëpp ils m'ont appelé ils ont voulu les anciens députés députés en exercice mais je dis que c'est pas la peine c'est-à-dire que moi euh, j'ai fait mon mon de député c'est-à-dire que en tant que citoyenne mm-hmm. en tant que parlementaire au service xëy ministre boobu nga xam ne loolu daal na ko mun ko wax. Mhm. moi je peux le faire. Ouais, bien et je l'ai fait. Mhm. en dehors de ma de ma personne. ki nga xam ne moom tey loolu daal na ko. bi ma ko waxee franchement dama ko soulager et d'autres ministres également. qui mhm. devaient voyager. ils m'ont tous appelé mais en même temps vous avez salué aussi le comportement de l'actuel ministre de de l'intérieur wala des forces armées non des forces armées des forces armées parce que quand je suis arrivé à l'aéroport de New York John euh, c'est vrai je me débrouille en anglais mais j'ai un anglais assez laborieux. Mhm. donc bi ma gisee xam naa may wax ak ak euh, sécurité bi il s'est avancé ñëw na ci man ma gis ma wax ak ñoom wax ak ñoom ñooñu na ko pourtant euh, on a compris ce qu'elle disait oui mhm. mais il a il a pris le temps après ànd ak man ba ci tapis bi fi ma jëlee sama bagage te xaw ma ko woon mhm. c'est quand on se quittait et qu'il m'a dit honorable à bientôt j'ai compris que lui il me connaissait mm je lui ai dit c'est comment il m'a dit Birame Diop. automatiquement voilà automatiquement euh, voilà c'est venu je lui ministre des forces armées. Mhm. il m'a dit oui alors qu'il qu'il ne s'était même pas présenté comme un ministre de la République. Mm. il m'a dit Birame Diop léegi yow sobriété boobu ngay c'est moi monsieur le forces armées voilà il m'a pas dit ça il m'a dit simplement je m'appelle Birame Diop il était en train de partir mhm. et c'est moi-même qui l'ai interpellé il m'a dit effectivement c'est moi il est allé plus loin il m'a dit vous êtes venu pour euh, une mission à New York j'ai même un appartement hein. il est même pour aller jusqu'à me proposer mm -hmm. comme lui il n'utilise pas son appartement à votre disposition à, votre, à ma disposition et je lui dis je vous remercie monsieur le ministre mais je continue sur Washington mhm. pour dire autant il y a des ministres qui sont arrogants autant il y a des a des autorités qui font dans le zèle autant il y a véritablement des, des autorités, des ministres de la République qui sont humbles et qui sont modestes, qui sont courtois et qui sont dans la diplomatie. Et c'est tout le contraire mmh. du ministre porte-parole.